ñu dem ah. baax na. ñu ngi leen di ziarat bu baax a baax di leen jox seen waay bu wér di nuyuwaat kulum ñu fi nekk rek di leen jox seen wàccuwaay bu baax baa baax tey ñu ñëw fii benn baraak fekk fi xale fekk fi ndaanaan fekk fi champion mu jëm dimanche le 26 digganteem ak Abou Ndiassé numéro 2 Bouba nuyu naa la. jërëjëf fay nañ la bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw guñ julee si yàlla yeneen bi di sant suñuy ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Basiiru Kan ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di nuyu waa Thiès yëpp waa Mbaalen Medina Fall ñëpp maa la nuyu di nuyu jëriñ Mor waaw léegi sonn suñu combat da si jàpp bu baax di nuyu Zoro waaw di nuyu suñu waa équipe di leen sant gërëm ñëpp waaw di nuyu ñu fi teew ñëpp maa la nuyu di sant buur day jàpp suñu combat da si bu baax a baax a baax a baax waaw ndax xam nga physique xale bi nga dugg ndax xam nga si xale bi nga jël Abou Ndiasse numéro 2. non Abou Ndiasse xam naa ko xam naa fi ma dugg xam naa ko bu baax a baax Abou Ndiasse on wana Thiès kooku du dara du tus du dara. adversaire yi nga bi de. bi ma am nag bi si gën a nooy. Eh. bi ma jàpp ni Abou Ndiasse ni bi kil la bii kil la su ko jàppee rek la. bii kil la fan nga wekk ne bii kil la. dama ko sax dama ko xam Abou Ndiasse dama ko xam. Ah, dafa am fu ngeen tase. dama ko xam maanaam dama ko siiwur dama ko xam bu baax waaw su ma ko jaabee rek laa mujj jeex. comment séntu nañ si ngeen xeex yéen ñaar xeex bu sax. Eh, dañuy bagaar luñ lépp laa indi. guerre laa jëm guerre damay xeex damay bëre. waaw te bisu taxawee dëggal boppam ma door ko mu daanu. bu taxawee dëggal boppam. ma door ko mu daanu. waaw li ngay loo gëm la wala. wallaahi taxawee dëggal boppam laa mujj du mën minute. indi ma samay combat ñëpp seetaan nañ ko ñëpp xam nañ bu baax nu muy bëree bu baax su arbitre sifflé pipe moom day ñëw damay attaqué. Abou Ndiassé dem ku am xam na day attaqué. kon nañu daje nañu ñu taxaw kon ñu daje ñu xeex xeex bu neex ba amateur yi kontaan promoteur yi kontaan supporter yi kontaan. kon da ngeen bëgg a xeex bu bay soog a bëre. loolaa bëgg ñu xeex ba pare ñu xeex lu tàng jër xeex lu metti waaw ba gars ba supporter yi kontaan ma doog koo jàpp daan ko. dégg nga li ma ne dafa bëgg xeex ak moom. waaw waaw waaw bu euh, baax Bouba avant tout da jëm ci sa premier grand combat parce que combat spécial nga waroon bëre ci waroon bëre grand combat bi dafa blessé finalement yaa ngi war a bëre sa premier grand combat à l'arène nationale booy xool déjà sa diggante ak Abou Niasse numéro 2 seen dafa similaire dafa am ay points xam ne dafa xaw niroo foofu noonu parce que booy seet Abou Niasse numéro 2 benn défaite la mës a am Malem Niane numéro 2 moo ko daan yow benn défaite maanaam am il faut da am ci yéen ku xajal moroomam mu jàll da nga ne Abou Niasse Abou Niasse la man je suis abu d' accord Abou Niasse numéro 2 booy jàmm gën la. Abou Niasse numéro 2 su demaatee dafa may may ma jàll. non non pare wul pour may la nga ma jàll. pare wul pour la nga jàll. ma teg sama bët Abou Niasse tee. Bouba da nga wóolu sa bëre mais Abou Niasse numéro 2 dafa mën a bëre. Abou Niasse on wana kër a jàmm. suñu nang yi mën a ko maa. nan no do waa Gine fop waa Tamba waa Kolda Ziguinchor nak caali xay gooro fop Abou Ndiass o wona mi ngo pulo loo d'accord sama gars yi may leen ñu tuuti euh, Bouba Bouba Bouba wax naa ko sànq ah, Malika Malika dañ la yónni yàkkamti la boo gisee tey sa open press gis nga Bulldozer seet ni mu la daree ñëw taxaw sa wet général bu Malika ñëw def benn benn passage génn yaa ngi may dégg ñoom Sita taxaw ñoom cargo bu Malika ñoom Mbës ñoom Aliou Fat Fat ñëpp a taxaw pour lan pousser la à la victoire mais na la leer ne jour si dañu tëj barrière yi yow ak Abou Niasse numéro ci biir kéew bi yaa may dégg looy jaay ci bëre na la leer ne Abou Niasse numéro 2 am lu doy man loolu daf maa leer fan ngay jaar Abou Niasse bu arbitre sifflé mu ne la kaa bëre lan ngay def Abou Niasse arbitre sifflé mu ne la kaa bëre ma jàngal ko bëre jour signature wax naa ko ne naa ko na dem jàngi doole bërewul doole doole bërewul Abou Niasse mënul bëre bu la ne ma jàngal ko bëre bu arbitre sifflé mu ne la kaa ñu xeex lan ngay def ñu duma ma duma ko daan ko xeex foo laa gën a mëne foo laa gën a mëne su ma ko jàpp dama koy duma est-ce que xam nga est-ce que xam nga victoire victoire ci Abou Niassène numéro 2 est-ce que xam nga fan la lay yóbbu maanaam yow nga bëree daan Abou Niassène numéro 2 est-ce que xam nga fan la lay yóbbu Abou Niassène numéro 2 fu ñu mën a yóbbu si làmb bari na fu ñu ko daane fu ñu mën a yóbbu bari na moo yàlla ñu yàlla suturaal ba bis ba rek wala ñu ñaan yàlla ngeen nekk ñaari adversaire de taille ngeen nekk ñaari adversaire de taille ngeen nekk ñaari adversaire de taille combat bi dinañ ci séntu yéen ñaar ngeen bëre bëre bi tax ñuy wax. waaw dañ bëre bu neex su taxawee dëggal boppam dinañ bëre ba amateur yi kontaan idi dinañ bëre ba amateur yi kontaan laa la wax te laamu fu ma ko jàpp fu ma ko jàpp der yaram bi sax su ma ko jàppee dama koy daan jëlee. der yaram bi der bi rek su ma ko jàppee daan ko jëlee. li ñuy wax chaque jour rek li des bëreetul dimanche yàggatul sa tungu ne ñu Abou Ndiassé dimanche lu ma leen ñaan nga taxaw nga dëggal sa bopp Abou Ndiassé soo taxawee dëggal sa bopp Abou Ndiassé laa mujj du yàgg waa benn baraag dañ maa yónni yàqamti ma di laa wala dañ maa yónni yàqamti ma waa Malika Talibu Xongu Caaro yi Géejawaay waa carrière bàyyi ñu ñëpp ñëpp barki Seydina Muhammad dañ maa yónni yàqamti ma ndam rek lañ ma sas côté côté mobilisation côté mobilisation combien sa téléphone bi côté mobilisation kuy bëreeg waa jàmm gën da nga ciy mustu parce que waa jàmm gën dañoo mën a mobiliser gis nga gis nga Siteu buy bëre li muy mobiliser gis wa lis naa ko buy bëre li muy mobiliser waa jàmm mën a supporter est que jour ji may ma tuuti may ma tuuti may may ma tuuti may leen ma tuuti may leen ma tuuti ñetti combat la affaire bi ñetti combat la premier combat bi mooy mobilisation bataille mobili côté mobilisation boo mobiliser ñaari car yóbbu aw ñaa sa numéro 2 mobiliser 15 car foofu dalay daan un deuxièmement muy lan mën a fecc chorégraphie beneen combat la Abou Niasse numéro 2 dafa mën a fecc dafa dégg galañ yaa may dégg foofu deuxième bataille la troisième bi nag mooy arbitre bi la génn seen diggante avant tout première bataille bi mooy lan mobilisation pour lan promoteur bi nga mobiliser benn braak Malika Boun Kër Massar booy bu baa génnee loo xam ne boo taxawee arène nationale ku xool xam ne booy bi kat mobilisé na seen naa soo xoolee tey open presse nu mu demee nga xam ne bu gën a Malika yi benn barage tal bu xonk jaara ñëpp pare nañ. macha allah gën a yëpp pare ñu dem yàlla suturaal ñu ñëw indi ndam li. yoole ko yoole ko wasam waaw suñu fekkee mu neex eh. suñu bëree mu neex. ragaloo mu noyé la ci mobilisation. suñu duggee ma yëngalee si woo teer yi ñëpp kontaan. gone yëpp pare nañ. di laa wala daal di woo di woo di woo ñoom di woo waa Malika yëpp benn baraak bala ngay wootee di woo général général bu Malika bala ngay wootee général bu Malika ñu ngi lay woo si combat bi. bala ngay wootee armée armée bu benn baraak ñu ngi lay woo si combat bi bulldozer bu Malika ñëpp ñoo ngi woo ñëpp. si combat bu ñu ñëw bala ngay wootee est-ce que préparation bi jaar na yoon est-ce que sa préparation coach Mbel bulldozer ñoom cargo ñoom Aliou Fatfat ñi nekkal sa écurie est-ce que préparation bi jaar na yoon combat bi est-ce que sa xel dal na ci préparation bi. te soo xoolee waa écurie bi tey nu ñëwee nga xam ne combat bi pare nañ ko bu baax a baax a baax soo tourné gis bulldozer gis Unca gis cargo gis Aliou Fatfat mu ngi loo jaay pe gis boo yëpp si ginnaaw ñoom Sita ñoom Mbaye Diouf. ñoom Baye nga xam ne kon lamb ji pare nañ ko bu baax a baax a waa bi yëpp côté ay autorités yoo xam ne war nañ mën a jën 3 blocs 4 blocs 5 blocs 10 blocs parce que ce la grand combat la boo duggee arène nationale foog ñu xam ne Bouba ñëw na yaa ngi may dégg bi est am nga ñu la jàppale ay autorités yu la jàppale ci ay blocs jàppale la ci ay car. mais wax na Fallou tukku tukku tukku mu tànk rek sonn sama combat daf ñu jàpp bu baax a baax a baax a baax. lii mu gis waaw am na ñu siy jàpp am na ñu siy jàpp waaye gars yi gisaguma kenn sama combat boobu ba léegi nag maa ngi maa ngi annoncé pour gars yi mun a ñëw jàpp samay ñun doomu benn baraag lañ tali bu Malika ñëpp ñun fi lañ bokk fi lañ juddoo fi lañ yaroo dañun dem ba toll si laam la ñoo a mun di jàppale yokk ñu doole wooteel di woo wool monsieur le maire yaa ngi may def autorité yëpp wool ñëpp nañ ñëw jàpp ci man maa ngi woo du ma dudd tur maa ngi woo di wax buubaa pare na pour ñëpp képp ku ñëw jàppale ko rek di nga ko fekk fekk tali bu xonk fii nii ak dawalkatu sareet yi la ah dawalkatu sareet yi dañoo sonn sama combat dañ bu baax a baax a baax waa talibu xong waa talibu xong ko sóori dañuy jàpp sama combat bu baax a baax mbii fa ñi arekaar gaa dañu sonn sama combat mafia feeraay bi dañu sonn sama combat dañ siy jàpp bu baax maa ngi leen di woo mafia feeraay bi ah rendez-vous dimanche ñëpp ñëw ah, waa carrière ah waa carrière bi maa ngi leen woo carrière bi bàyyi ñu ñëpp ba jaxaay ba Tivaouane Peulh Kër Massar jaxaay bi waaw carrière ñëpp maa leen woo si combat bi ah ma fi yaay rek ah Kang Kang day sonn suñu combat da si jàpp bu baax a baax di woo Pape Fall ah Pape Fall ministre day sonn suñu bu baax a baax buur buur Seydou Thiat day jàpp suñu combat da si jàpp da si sonn bu baax a baax waaw buur waaw di woo Ndiaga Ferrailleur nag Ndiaga Ndiaga Ferrailleur day jàpp suñu combat da si sonn bu baax di woo Zungula ah Zungula ñëwal jàpp suñu combat ñun doomu benn dëkk bi lañ ah waaw di woo ñëpp di woo Serigne Ferrailleur waaw di woo Serigne ñoo ñëpp ñëw jàpp si combat bi ñoom Ngora di woo ñëpp nag di woo waa Caaroy waa Caaroy di leen woo bu baax a baax si combat bi ah. di sant sama ménageur nag ménageur sama ménageur Abdou Naar Abdou Naar rek sonn sama man waaw Naar ak Naar boulangerie maa ngi woo ñëpp sama koñ Grand Fara waaw day sonn sama combat da si jàpp bu baax a baax. wax ci bil un mot ci bulldozer lan nga wax ci bulldozer nekkoon ci yoon. nekkoon ci yoon di représenté dignement Malika. mais dernier combat bi dafa dem. ñàkk digganteem ak caatu yoo. instant bi mu jëlaat beneen risque farouche la jël. un mois lan nga ci bulldozer. non bi loolu instant mu ngi ci entraînement waaw mu ngi entraîné na bu baax a baax di waaj. di waaj di waaj farouche bi gërëm suñu ñëwaatee rek ñu xam ne ñëwaat nañ. loolu la fa waaw instant ñu ngi si entraînement yu baax buñ ko. suñ ko jàppee laa mujj jeex waaw ñun ñu ngi si ginnaaw bi. waaw demee booy bi ñaanal dañ koy ñaanal booy bu yaru te bokk na si booy yoo xamante ne ñun man kii Malika am na si moom yaakaar waaw bokk na moom moo ma gën a yaru xam nga ñun bokk na si booy yoo xamante ne xam nga équipe Malika Mboga am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax bu ko ñaanal nag yàlla may ko ndax bu baax a baax di woo gars yëpp ñun ñëpp ñëw génn jàppale booy bi booy champion la benn defar nga am si nga am ba te xam nga ñu ngi soog a bëri premier grand combat ku ne am na grand combat dafa métti ñu ngi woo autorité yëpp ñëpp ñu nekk ci département Kër Massar yëpp Malika Ndiogou Sow monsieur le maire bu Malika waaw ñëpp ñu ngi leen di woo waa montagne waa Mbëbës ñëpp ñu ngi leen di woo parce que combat bi waaw monsieur le maire Talla Gadiaga monsieur le maire Yëmbal Babacar Ndaw monsieur le maire Yëmbal Sud parce que département bi la yaa te booy bi dimanche mooy moom mooy représenté département bi ñu ngi koy ñaanal nag yàlla may ko ndam lu sedd guy te yàlla na ko may ndam incha allah moom day jàpp sama combat bu baax lamb bu jóobeen da siy jàpp da siy sonn boo paree mu ma taxaw Issa waa njóobeen bi njóobeen bi maa woo ñëpp dañu sonn sama combat dañ siy day baax maa ngi seen ginnaaw waaw woo Boy Diop waaw di woo si laamu ji ñoom Cheikh Laye bàyyi kenn ku lim da ngay jum jokkoo di la wax rendez-vous ah. na ñëpp mobilisé wu ñu ñëw dem stade ñu yoole ko ba mu yoole bëre jàpp daan waaw di sant nag mbay jum mbay dollar rek sonn sama combat da ciy jàpp bu baax a baax billaahi wallaahi di ko